asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñuy topp ci biir réew mi ci bitim réew yëpp noo ngi leen nuyu bu baax a baax te di leen ziar di leen nuyoo fii ci Mbàkke fii ci kër Serigne Cheikh Jëmm Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan suñu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax te wéral ko ba ay naalam lépp mu yeggale ko ci way juróom seex mu du Moussa Fall waaye yeggale ko ci juróom maam Cheikh Ibrahima Fall di maamam ñaan suñu borom kàttanal ko ba lépp mu jëf ko te fekk lépp Eh, di ko ziar bu baax a baax di ziar mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp nag eh, tey nag ñu amoon digal ci sëriñ bi eh, ngir ñëw fii ci kër gi waxtaan ak kenn ci jëwriñ yi ne ci biir kër gi di ne fi wetu sëriñ bi yor kàddoom muy sëriñ Omar Doumbouya àddina bépp xam nañ ko ci kanamu sëriñ Cheikh Jëmm Fall di xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall waxtaan wi ñu fas yéene def ak moom nag lépp mu ngi jëm ci wàccaayu koor gi nga xamante ni bii ñu ngi koy dëgmal ay ay bis yu néew moo def ci suñu kanam ngir ñu yegg ci te xam ngeen ne bu masaane dikk taxawaay bi nga xamante ne bii Serigne Cheikh jëmm yàgg na ko cee taxawu di ko liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim te mooy lim jëlee ci ay kilifaam mbooleem bi nga xamante ni bii maam Cheikh Ibrahima fal tàmbali woon na ko ci ndigal Serigne bi waaye jóge fii itam njaboot gi doon ko taxawu ba ci ki fi mujj tey ci njaboot gi muy Serigne Abdou Sakor ñi nga xamante ni bi ñooy sëti maam Cheikh Ibrahima Fall tàmbalee ci sëriñ Mourou Aminta Fall liggéey ko ba yegg si tey ji ci loxoom mu yokk ko nag bu baax a baax a baax te sëñ Omar dina ci dikk ak nun euh, ndigal li ci sëriñ bi joxe ren ji nga xamante ne bi dafa tombeek yëngu-yëngu yi xew ci àdduna si yëpp te mooy feebar bi nga xam ñu ngi koy dégg muy coronavirus bi nga xam ne wër na àddina ba dugg fii ci réewum senegal tax itam am ci loo xamante ni bii kii di Serigne Touba Cheikhul Khadim santaane na ko ci te loolu bu jógee kër Serigne Touba kër Cheikh Ibra Fall la wàcc te maam Cheikh Ibrahima Fall la ko Serigne Touba waxoon la wax la mu Serigne Abdou Lahad Mbacké waxoon rek mooy ki war a joxe ndigal day joxe ndigal ki war a jëfandikoo ndigal di te loolu lañ xamoo baaxoo kër gii di kër maam Cheikh Ibrahima Fall Baay Mouridina Serigne bi ne yëkkati ay kaddu ngir ñu war koo jëmale mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo daan ñëw fii ci koor gi di ñëw ci ndog yi loolu kàddu yooyu nag seriñ bi teg ko ci loxol Serigne Omar Doumbouya ñu àndandoo nag teewlu ko bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonenteem bu tedd ma di jaajëfal Cheikh mat Bamba Xaadim Rasul di jaaraamal Cheikh Rahim Fall Babul Mouridine di ñaanal Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall yàlla na sa borom dolli leeram taas ci ci ma di ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall mi nga xamee ni mooy borom kër gi sama borom wéral ko te yàggal ko ba mbooleem ay naal yim naal jëme ko ci liggéeyu Cheikh Rafal gi sama borom defal ko ba defal ko lu kay njortam Serigne Mamour ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare. lii nga xamee ni nag sëriñ bi jox nañu ci ndigal ngir ñu am ci luñ ci saraa ci euh, nga xam ni kàddoom la ñuy waxee sëriñ bi ndigal li joxe ci liggéeyu ren gi mooy gis nga tawat gi nga xamee ne moo lëmbee àdduna gépp nga xamee ne lu sa borom wàccee la mu lëmbee àdduna ba jullit ñi ñu baree bare am ci jaaxle ba gouvernement yi gouvernement bi jël ci ay décret nga xam ne àdduna gépp kenn ku ci nekk wet ga nga fare am na loo ci jàpp am noo bëgg a doxale ngir tawat gi mën fay yem ci seen la ñu jàng sëriñ bi nag gannaaw bi nga xamee ne dégg na loolu moom sëñ Muntaxa rek lay déglu sëñ Muntaxa ci boppam bi ñu nekkee ci liggéey bii nga xamee ne mooy terrain Mbàkke bi yàggul tuuti rek la yónni sëñ Bass Abdou ak mbooloo mi war a àndal ñëpp ñu ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi wax leen ni kat dafa mel ni seen liggéey bi dafa sorewut ak liggéey bi nga xamee ne moom la Cheikh Ibra daan liggéeyal sëñ Tubaa mooy liggéeyu koor gi kon danoo bëggoon ñu ñaanal leen ngeen dem waaji koor gi ñun nag ci la xamee ni dinañ togg ndaw ak lu mën a xew sëriñ bi moom ba mu toggee ndogu ni dem leen waaji ko rek ci lañ xamee ñun dinañ togg ndogu ci la suñu xel gën a dal ndax lu mën a am ci àdduna ak yëngu-yëngu gu mën a amit ñun ci liggéey bi ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa te lañu amee yaakaar yu ñoddi ci am ci la amee yaakaar ba max bii sëriñ bi jël nag mooy xam na ni moom dafa mel ni tawat bi dajale mbooloo lay bañ ngir bu nu dajalee mbooloo jomb ni dina am kenn ku ko ci am kookee bu ko ci ameet dana yomb te sëriñ bi defar dong moo ko tax a jóg te sëriñ bi lépp loo xamee ne sëriñam bu baax bi digle na ko ci loolee dong la nekk sëriñ bi nag woolu ay rakki boppam woolu ay euh, doomi boppam woolu ñenn ci seex yi ñi nga xamee ne séq na ak ñoom liggéey bi ci ndigalu sëñ Muntaxa wax leen ni kat dafa mel ne liggéey bi ren dañ koy soppi xam ngeen ni li fi mës a jaar yëpp ca nekkub Cheikh ma Fall ba tey jii ndogu fu ñu ko mës a toggee Cheikh Ibrahima ci këram la ko daan togg ca njaa njaarim Cheikh Mamadou mu Fall fa mu nekk la ko daan def ba ci sëñ Abdou Sakkoor moom noonee ba ci sëñ Modou Aminta Fall ci biir kër gi waaye nag wax dëgg yàlla euh, sabab moo am tax ba sëriñ bi tey jii li ñuy wax euh, mu séddale ko naka la ko sëriñ bi séddale xool ay rakki boppam yi nga xamee ne kenn ku ne gàddu nga cin ak ay doomi boppam ak ay seexi boppam yi nga xamee ne gàddu nañ ay cin kenn ku ci nekk moo ne kat liggéey bi nga ma daan defal ñu daan daje ci kër gi ñu ko daan def kon léegi dañuy def kenn ku ci nekk nga toog sa kër lépp loo xamee ni doon na la fi fekk si mu jëm ci la koy defar ginaar ak la ci ànd lépp ba ci xorom sëriñ bi moo koy jël fii yónnee ko rakkam ya ko daan togg wala doomam ba ko daan togg wala seexi boppam ya ko daan def ñu defar ko ba mu yegg ñaari nit yenn waat ko foofu ñëw àndil ko sëñ bi ñu dajawaat ci biir kër gi nag bu lépp dajee comme nañ ko daan defee teg ko ci oto bu dee Touba la sëñ Moustapha takk der dana xool benn ñaar bu muy àndal bu dee njaareem la sëñ jiilim sëñ Modou Amin te dana ci ànd xool ñaar ñu ñett ñu mu àndal ngir ñu mën a jëfee liggéey boobu loolee nag sëriñ bi lu ñu ci jublu sëriñ bi moom li mu bëgg mooy li nga xamee ne wàcc na fi ñu ñaan ci kàttanu Cheikh Ibrahima Fall ak ci barkeem ndog bi naan ndog yi dem yoonam ndax it lu nu gëm la lu nu yaakaar la lu ñu doyloo la ndax loo xamee ne du ñu teg dañoo jàpp nit ki réew ko coobareb sama borom la yàlla moom moo wàccee balaa balaa it li gëm ni moo ko mën a seral li ñu gëm ni moo ko fu mën a jële mooy ñaan te ñaan dara gënu koo gaaw jëf te Cheikh Ibra Fall nee na ndox yi may toggal sëñ Bamba ku umu woon ba mënatoo am dara boo taxawee bu la saxaar si xeeñee umute gi dana dañ boo wéradi woon ba ñu ñàkk ci yow yaakaar it boo taxawee saxaar si bu la duggee mu dañ lii ñu gëm te sëriñ bi xam ko mooy liggéey bi ñuy liggéeyal sëñ Bamba bëgg nañ daal balaay liggéey bee noppi tawat gi kenn dootu ko fi dégg waaye nag sëriñ bi nag moo ngi soññee sëñ Cheikh Fall Baye Góor nee na yoon bañ ko dee wax ñee doxa tax kon ku doxut bokku ci xam nañ ne liggéey bi sëñ bi ñam ko séqaloon mooy ay rakki boppam ñam ko séqaloon mooy ay doomi boppam ñañ ko séqaloon mooy seex si nga xamee ni ñoom ca jamonoy Cheikh ba tey jii ñoom xalifa Cheikh Ibra xalifa Cheikh xalifa Cheikh Ibra la ñuy topp sëriñ bi wax ni moo ngi soññeewaat bu baax lañuy soññee xam nañ ne li daan def ci kër gépp doom yee ko daan def taali ah, rakk yi cheikh yi ak bonne volante yi nga xamee ne danoo safoo sëriñ bi ñoo fi daan àndali seen ñàq sëñ bi dajale ko moo mu doon ab lim lenn lu ci nekk ñu xool lañ ci war a jënd ñu jënd ko daal di ko mën a fexe ba liggéey bi mën a dem ci kër sëñ Tuubaa kenn ku ne xam na ne jafe-jafe am na wàllu jóg ak ñëw jafe na te dañ koy aaye kon sëriñ bi ndigal li mu joxe mooy kenn ku ci ne fa nga toog mën nga faa toog waaye dafa ay ndaw yoo xam danoo gaaw lool waaye sa jëf dana ñëw ci sëriñ bi am na ku fi nekk ku mel ni sëriñ ma ngay ñang wax dëgg yàlla doon jàmbaar ci sëriñ bi lantinoor la moom du téye diw lépp loo xamee ne nit joor na ko ko fa mu war a ñëw ci sëñ bi sëñ bi dana ci jot kon kat am nañu ngantu ñëw waaye amuñu ngantu joxe xam nañ ni ndogu yi sëñ bi murid yi dong ci yaakaar budget biñ ciy def yépp sëriñ bi murid yi la ci yaakaar yaakaaru ci kenn jàpp nañu ñoom la séqal sëriñ bi ndax dañuy wax rek ni sëriñ bi kat njabootam la yaakaar ngir lu mu bëgg a jëf mu jëf ko kon sëriñ baa ngi soññee sëriñ bi nee na liggéeyu ren gii kat dañ koo soppi te nee na daa lu mu ci bëgg lim ci bëgg nag jëfal sëñ Tuubaa loo xamee ni mosu fay am ci yi jaaroon mooy mën a tax kat li ñu bëgg mu doon yëngu-yëngu ci réew mi mu daal di fi jóg kon sëñ bi ci ndog gi la ko sas ci ndog gi la ko aj kon nag nam ko ci ajee mooy bëgg naa jébbal sëñ Tuubaa loo xamee ni àdduna gépp daanoo xam ne kat Baay Faal yi fii lañ nekk ñëw kon nag li ko def mooy sëñ bi ñam séqal liggéey bi mooy kat nanu xam ne lépp lépp ñoom la ci ñoom doog la ko sëriñ bi yaakaar sëriñ baa ngi soññee donte que ñooñee ko sëñ bi yaakaar yi lu ci waay sa bopp nga ko defal ndax sëriñ bi sëñ Fallou Mbacke daana wax ne am dencal ma kenn du ma ci rey waaye sëriñ bi gën ñoo gore tax ne boo ko joxee benn mu fulal la ko ba noppi dencal la ko làqal la ko fu la fu yàq yëggut kon sëriñ bi moo ngi soññee ci loo xamee ne ndimbalub sama borom la moo ngi ñuy ci loo xamee ne buñ ci jógee pajub aajo la ñuy am moo ngi ñuy soññee ci loo xamee bu buñ ci xasee tàbbi dootuñu ragal dara ndax képp ku ne ci ndigalit ka nga ne ci ndigalam moo lay aar moo ngi lay wot moo lay jàmmal te Cheikh nee na ku may woo nag ma woo ci li ko jar maa raw melax buy du ma wuute ñun tiituñu dara ragaluñ dara waaye tiit nañ dala nag waaye ragal nañ dara mooy ñàkk liggéeyal sëñ Bamba ak ñàkk jox Cheikh Ibra Fall mu jox sëñ Bamba loolee kat Baye Fall bu ñu ko defut dinañ tawat dinañ wéradi du nu man du nu xam du nu gis dinañ jaaxle waaye nag bu nu sëñ Tubaa joxee ndigal Cheikh rek mi nga xamee ne mooy sëñ Cheikh jëmb jëlaat ndigal li tasaare ko ci ñim ko ñim njaboote ñëpp wér nañu dara méttiwuñu lépp neex nañu te luñ bëgg lépp dinañ ko am kon nag ndigal tàbbiwaat ma sunu biir mu doon ndigal loo xamee nag ndigal lu fi yàgg la kon sëriñ Serigne jëm jëmb moo ngi soññee bépp bon volonté bépp koo xamee da ngaa aju ci moom mu doon taalibe mu doon ab seex mu doon ab doom mu doon ab rakk kon sëriñ baa ngi wax ni atum ren atu bi la tënk-tënk am na waaye yàlla mi doon joxe jógu fi te yàlla tëlewul dara atum ren atum jiiroo la yàlla mi doon joxe jógu fi te yàlla tey la gën a gaaw kon sëriñ bi nee na nanu xëccu jëm ci liggéey bi nañ ci def lu ñu man ak lu ñu mënut nañ ci def lu ñu xam ak lu ñu xamut nañ ci jeexal sunu lépp bu ñu ko defee sama borom daanu defal tawféex dana faj sunu aajo ci sayr dana faj sunu ajo ci baatin sëriñ baa ngi dollee waaj ñaanal nag nee na moo ngi fasal réew mi di fasal àdduna gépp képp koo xamee ne tawat gi jàpp na la yàlla na yàlla dogal sama borom defal la shifaawu ñoo xamee ne sama borom dogal na ne yegg seeguñ ci ñoom it yàlla buñ ko gis ba faw Sénégal ak lu wër Sénégal ak àdduna gépp sëriñ ba ngi ñaan yàlla na sama borom wàccee fépp jàmm jërëjëf sëñ na Omar jërëjëf ci kàddu yi solo yi waaye dafa am rek benn laaj moo bëggoon a laaj eh, boo xam ne dama ko fi sof ci sa kàddu yi nga gën ñu cee indi ay leeral laataa may dugg nag ci lu gàtt rek lu jëm ci ndog yi nga fàttali ñu cosaan li ndax buñ nee ndog yi nga xamante ni bi moom la maam Cheikh Ibrahima Fall daan toggal sëñ Touba eh, tey ñi fi nekkal maam Cheikh Ibrahima la ko dalla ci Cheikh Moussa Fall ba ci sëñ Cheikh jëmbu tey ñu da ko taxawu na ko Cheikh Fall daan taxawoo tam yokk nag ndax ku yokkul yaa wàññi tey itam yàlla xam na ne ku xam li ko sëñ Cheikh jëmb du togge xam ne yokk na ko bu baax a baax a baax a baax loolu dinañ ci dikk incha allah nga fàttali ñu rek cosaan li ngir ñuy topp xam ne cosaan li ndogu li ndogu yi am na cosaan loo xamante ne bii war nañ koy fàttali saa su nekk waaye dafa danga wax lu am solo mooy sëriñ bi ren daf cee jël ay matukaay matukaay yi mooy dafa tasaare ndog yi ci njaboot gi ko daan togg si fii kenn ku ne mu yut la ko këram waaye lépp lu ca war nag sëriñ bee la koy jox waaye mel na ni itam fii ci biir kër sëñ bi it am na ñenn ci ak njabootam ñoo xam amoon nañ ay cin cin yooyu danañ wéyal moom togg ko fii ci biir kër gi loola nag eh, ci ñiy ñëw te yaakaar kër gi nan la sëriñ bi di doxee ak ñoom ndax xam naa ñi ci biti moom kenn ku ne na la ko sëñ bi sante ña yaakaar tey ñëw sa kër moom danga leen jox maanaam say ndigal ci ni ñuy ñëwee ngir foofa ndax sëñ moom bu noppee daa bëgg lu mat ñaar jàpp ñett rek indi ko fii su ko defee moom it mu tànn ña koy yóbbu ñu yóbbu ko waaye kenn ku ci nekk itam bu yàlla dogalee sëriñ bi sas la lam lay sas sa kër nga xool na ngay waxtaane sa mbooloo ngir la fay teew lim ba mbooloo ma bañ a bari ndax na ko sëñ bi bëggee mu amee ko nii ban duñ fa dajaloo léegi fii ci biir kër sëñ bi itam am na ñooñ moom sëñ bi mooy seen buntu fii lañ daan toggisee ñooñu lan la sëñ bi wax ak ñoom. liggéey bi sëriñ bi biir kër gi ñett cin la fi sëriñ bi am ñett cin ne na ko sëñ bi joxee ndigal noonu lañ ko daan defee waaye nag dafa di nag ñi nga xamee ne daan nañ ñëw sëñ bi wax na ne bu kenn yegg si noonu la ko waxee nee na bu kenn yegg si ñi mu wax ñu yegg si mooy ñi mënta ñàkk te jege ñoo andi seen addiya dem ñi nga xamee ni dañuy ñëw jël seeni cin ca dañ leen koo jox ñu doon rakk mbaa mu doon doom mbaa mu doon seex si mag ñu am ku nu àndal ñëw andi seenu liggéey ñoo ñëwee sëñ bi wax ni kat mën nañoo yegg si ci kër gi waaye ñi nga xamee ni ñoom tey benn benn yi ñëw di ànd ci seen liggéey sëñ bi may na leen ko ñu ñëw jox seen liggéey sëñ bi daal di dem mooy ñu dëkk ci biir dëkk bi waaye kantaa ñoo xamee ne nag indi si wuñu liggéey daanaka dañuy seetaan si rek te boobaa ñooñu ñooy indi mbooloo ci kër gi te sëriñ bi loolee lay bañ sëriñ bi nee na loolu wax dëgg yàlla moo ngi ciy joxe am ngànt ndigal nag caabi la su ëppee du ubbi su manqué du ubbi waaye bu ci yemee boo wëlbatee mu daal di ne kàccit kon sëriñ bi ndigal li mu joxe ci kër gi mooy ñim fi soxla rek la bëgg ñu teew fi kon képp ko mu fi soxla wut damal wuti loo def ci liggéey sëñ Bàmba bi ndax seetaan ñeetaan ku jëf dara am dara ku jëfut dara doo dara sëñ Mamour loolu leer na Eh, jërëjëf sëñ Omar santaat nañ bu baax a baax eh, nga fàttali ñu nag ci tënk maanaam lan mooy cosaanu ndog yi lan mooy ndigal li maam Cheikh Ibrahima Fall jële woon ci sëñ Touba ba tax tey ji ñuy togg ndogu sëñ Mamour nag li mooy laaj wax ci dana yomb waaye nag nit bu bëggee fàttali lu ko mag dina métti tuuti waaye taw féex la nu am taw féex gi ñaam mooy sëriñ bii ci biir ñu tuddee ko Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine Cheikh Ibrahima bàyyi ko fi laataa moo dem àjjana nee na ma am naa ñetti jotaay ak Cheikh Ibra yoo xamee ne fàttewuma ci benn te lépp wax na ma ko te Cheikh Ibra Fall bi mu fi jógee boobu fekk na sëñ bi fedd na ci sayir moo mën a wax ni ni daam bi sëñ Tubaa ci boppam gannaaw bi Cheikh Ibra jógee Thiès sëñ Mamour xam nga ni Cheikh Ibra Thiès la jóge ñëw njaarim ba mu nekkee Thiès it ngan gu yàgg googee mu ñëw fekk si woon sunu maam sëñ Babacar Lo yàlla na sa borom dolli leeram taas ñu ci barkeem ay añ la daan togg foofu daan ko teg ci train bu ñuy wax régalier mu daan fekk ci sëñ tubaa fii ci njaarim ginnaaw bi sëriñ tubaa wooloo sunu maam Cheikh Ibrahima Fall ne ko mu ñëw wuy si ko bi mu ñëwee nag mu téye ko fi mooy la xëy bis ñuy séentu weeru koor comme nii mu woolu ko mu ñëw wax nañu ànd ak sàmm Massamba Ndiaye baay moo dugg Gueye Maaro sëñ Yaaram Mbay sëñ Ndiaye Roqeya bi mu yëgloo ba yegg si ci sëñ bi mu ne ko Ibra Fall mu ne ko Mbàkke mu ne ko damay séentu ay gan yooyu gankat bëgg naa nga toggal leen ay reer tàll sa loxo mu ñaanal la dégg naa mu ñaanal ko sëriñ bee ma wax de Cheikh Ibra ànd ak mag ñi ma àndaloon wax nañ ne bu jógee ci sëriñ bi aal gi ak bëgg sëriñ bi dana ko yóbbee foo xamee dana dox lu yàgg tàngoor gi door a wàcc bi mu doxee ba jégg raay gi kër seex di dugg kër gu mag jégg jégg kër gu mag di dugg kër seex dem ba ku toll foofu passage à bi nekk kër Libière tàngoor gi wàcc mu ni yaaram mbay mu ne ko faal mu tudd mag ñooñu mu léegi ne ko sëñ Tubaa kat day junj ab junjam ku dul man Ibra Fall déggoo ko sëñ Bàmba lu mu wax mu ne sëñ Tubaa day day neen day togg ay day séentu ay gan yooyu gan la bëgg nga toggal leen ay reer mu ne hé ah doom ndax li muy junj xam ngeen ko mag ñi ne tekk mu ne sëñ Bàmba ay ndogu la may toggaloo waaye ndogu yi may toggaloo ku ma jox la tolloog tànk benn tànk ci yooyu jamono mooy juróomi fistin nee na doom danaa la ci defal defar gu dootul yàqu boo faatoo ma tabal la àjjana wax naa la sànq ni daanañ togg ay ndogu ba ci yàgg boobu fekk na moo ngi fi mu daal di génn xool fu saxaar si ëppee mu daal di fa taxaw saxaar si dugg ko mu ne ah doom xam nga lu ma ci dugg ndox yi may toggal sëñ Bamba saxaar si boo umu woon ba mënatoo am dara fu saxaar fare boo fa taxawee bu la saxaar si duggee ku mu tëggee dana deñ boo tawatoon ba ñu ñàkk ci yow yaakaar boo xoolee fi saxaar si ëppee boo fa taxawee saxaar si bu la duggee ngi wér kon moo tax ñun ñu gëm ni ñun li ñu gëm lañuy wax ndax euh, Cheikh bi Fall mooy docteur bu mag bi moom lanu gëm ni. ndogum yii bu ñu ko yu joxee sëñ Bàmba ba ndogu yi jeex incha allahu yi ndegam soob na yàlla yëngu-yëngu gii dana jóge ci réew mi dana jóg ci àdduna gépp ndax seex Ibra Fall dooleem tëlewul dara tëlewul dara rawat na ki muy liggéeyal nag ndax benn bis wax na ci mag ñi ñëw na ci sëñ Tubaa ne ko man kat damay def fu ma teg sama tànk ci sama borom bu ma gesoo gis seen sama dongay teg ko fa mu ne ko Ibra Fall mu ne ko Mbàkke mu ne ko dangaa xeeb ñuy bagg sama diggante yow nee na ko mu ni sëriñ bi nag bëgg maa wone naka la ba noppi yem ak ñoom nee na keroog la ma sëñ Tuubaa teg ci mbaq sànni ma foo xam ne jëfal yàlla doo fooy bu nit sëñ Mamour ñoo ngi leen di siyaare ñoo ngi leen di ñaanal sama borom defal leen gudd fan tu ànd ak wér kontaan nañ ci yow lool ku santul nit doo sant yàlla ndax danoo bokk liggéey bi waaye sa pas-pas yaag naa leen Badara Ndine sa dëggal ak nga bàyyi lépp féeteeg sëriñ bi yëngu ci sëriñ bi xëyatuloo kenn gontaloo kenn ku dul sama am Cheikh Ibra Fall da cee bokk nit na cee bokk amul pas bi nga am waaye yàlla am na fay yàlla na yéen sama borom fay sëriñ bi wax nañu moo ngi sant ay rakki boppam nag yi nga xamee danoo aju ci moom ak ñeneen ñi nga xamee ni danoo ne danoo aju ci moom te ñëpp ci moom lañu aju ndax saa yu wootee ñëpp nañ gis ngeen liggéeyu barke démboo bi ñëpp a ñëw ak seen wërsëg yi bopp sëñ baa ngi leen di beral aw cant leen di beral aw ñi nga xamee ni nag dañ leen ñëw ne ci beneen barab nag di ko toggal ay ndog di ko yóbbul ci sëñ Tuubaa kon wax ji ñoom ñëpp ñoom ñoo ko moom ndax lépp lu yëngu foofu sëriñ bi rek lañ koy defal sëriñ bi moo ngi leen di ñaanal ñoom it nañ ko tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim noppi ko ci naa rabbil alamin lépp luñ ciy ñoddi sama borom teg ko seen loxo lépp luñ ciy dàqit sama borom dàqal leen ko kon sëriñ bi wax ni nag bu amee lu jub sëriñ bi la bu amee lu dëngit di doomu aadama la ndax nit matul ñoo ngi leen di sant bu baax ñoo ngi leen di gërëm bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf jërëjëf Seydina Omar Doumbouya jërëjëf di sant bu baax a baax tey ñaan suñu borom mu doon la fa yàggal bu baax Eh, ci taxawaay bi waaye liggéey bu tedd bi nga xam ni yaa ngi ko yoral ku tedd kii di Serigne Cheikh jëmm te lépp rafet te saa boo yëkkatee say kàddu murid yëpp seen xel delluwaat ci ndigal waaye delluwaat ci am yéene jëfal maam Cheikh Ibrahima Fall am na murid bu ma wax ci bitim réew na man Omar bokk na ci ñi may soññ saa bu ma ko déggee rek li ma doon jëf ci Serafal dama ko yokk loolu nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom doolu dafa yàggal ndax loolu nag xam naa sëñ Cheikh jëmm waaw moom moom kenn du moom kookee la waaw a yàgg fi loolu te wér waaye ñaanal sëriñ bi suñu borom doolu ko fa a baax sëñ Magay Ñang ci bi nga xam ne mi ngi koy taxawu sëriñ bi a baax mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ni ko ndigal li nga xam ni sëriñ Cheikh jëmm joxoñ na ko te mooy ndigal li ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha benn ndigal rek la ñëpp di reti Cheikh Fall loolu lañ fas yéene ànd jëfe ko ndax kenn ku ci nekk ci ñi ma jotagut a mos lenn ci seeni kàddu mooy dañoo tënku ci li sëñ bi santaane te mooy rek limité mbooloo mi fexe ba li ñu bëgg a jëf ñu jëf ko ndax ni ko sëñ Omar waxee xam nga jëf ji dafa am loolu kàttan la waaw kàttan bu ñu ko waxee mooy da ngay nokki joxe yëf yi du dajaloo rek di wax daal maam jëf ci la bokk kon nañ xam ne jëf ji moo ci solo ndax bu mbooloo dajee ba bëri te kenn génnewul sa dara joxe lañ bëgg du sotti ndax lay dem fi sëñ bi faaw ñu làmb ci poos yi def ko te maam Cheikh nee na li yàlla jox bu ñu ko joxul sëñ Bamba dana xewi te bu xewee ku ko jox du ko jël kon nañ fexe ba ndogu yi ñu waajal luñ ca def te xam ne nam daan demee ñu lay demee ba tey la ca soppiku mooy dajaloo bi ak mbooloo mi rek la sëriñ bi wàññi waaye jëf ji moom dara du ca wàññi ko na daa war a yokk ndax Cheikh Rafal nee na yokk yoon wi yokku la laaj te it Cheikh Ibra nee na jàpp leen ci ndax ku jàpp mu dem ku jàpp mu dem tey ngeen jee jàpp mu mën a yéen koy doxal ngeen de sa sag bi ndax yoon wi kat doom day yokk te bu yokkoon jiñ leen ko kon noo ngi sant bu baax tey ñaan yàlla suñu borom may ñu kattan ak dooley poos bañ mën a jëf ci ndog yi lu ëpp lañu jëfoon daaw di siyaar baax El Hadj si Sylla ci taxawaay bi di siyaar mboolee mbokk ñuy topp yëpp te incha allahu di ko waaje nii nag tey ñaan suñu borom defal ñu ñu fekk kook jàmm ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall ba Mouridina